ñu tër ko nangam am na lu ko gën a yomb muy laa taqar buusi naa bul laal bul jege bul xool ngay kate ñëwal ñu ci suura boobu man lool rek laa soxla li ma soxla bëriwul de dama ne la lan la yàlla wax ci jabar joo xam ne nii takkoo ko ak bërëb bu bon nga fay dem di maasewu ji loolu moom mooy wax ji mais xaaral yàlla nee na li ngay wax lépp xam nañ ko te jàng nañ ko mais li nu jàng ba jàng ko mooy yàlla nee na ci alxuraan bépp jigéen boo xamante si nii takkoo ko te du sa jabar léwu la waxuma la nga raay ko wala nga teg ko loxo xool da cee araam bind ko ci alxuraan yow nag yemoo ci xool mais danga doon kate ba jaawale lëf léeg tun gi dugal ko ci tun gi rocc sa koy bi mu takk day premier leader politique bu koy ma sa takk day Ousmane Sonko aaya boobu laa bëgg nga indil ma ko laa taqara buusi naa ngay kate waaye gars yi nan waxante dëgg waaye du ngeen wax dëgg yéen ah du ngeen wax dëgg ah ñàkk fayda weesuwul ay Déthié Fall Déthié ak yow joxe woo sa koy simmi woo sa tubéy ay Guy Marius Sagna kattu leen kenn kattu leen seen famille kenn ñu ko kattu luwu leen Ousmane Sonko kat Adji Sarr lanu kat ñoom ñaara te mën nañ koo réglé ngeen di yolox solo si tàngoor bi naan da ngeen di jaay ñekk ak ñuy door ay lakkar mason ngeen di puub seen tubéy di daw ñàkk fayda mënu koo weesu pour nekk ci këram ñàkk fayda bëgg a yéen xanaa yéen bu doon pour oustaz la wala ab sëriñ xanaa war naa taxaw daan ne ah def erreur yi maa ngi jéggalu ndax bërëb bi ma dem du sama place bërëb bu cagala kattante lan fay def ak dàmp loog maasa ay koy macc ay awraag log ay bulut ay dambalu damal dambalu nit ñooñu doonu ay nit yaa ngi dégg daan ne maa ngi leen di jéggalu maa def erreur te yàlla nee na ci alxuraan kat laa taqarabu zina bul laal buy jege man may katte maa def erreur ñu nangul ko oustaz bi mais tant que tant waxul ne laa taqarabu zina mu ngi ci alxuraan te yàllaa ko wax moom moo ne bul laal bul jege bul xool man ma dem kat kenn du ko gëm na toog na wax ba sonn mais saar boobu moom mënu ko fi dindi ndax li li yàlla wàccee ci Ibrahima wàcce ko ci Ismaïla ba mu osé di ko wax di ko jaarale ci xaru tabaski yi moom la wax ci lëf kat loo moomul te moom la def ah jàngale jàngale rek benn bi la de. xattaa taqarabu si naa ngay gate yow weesu nga laal xool sax weesu nga ko laata bul bul xool yemoo ci xool ne yow ngay roofi koy bay dugal ci tun gi ma yow kenn day yow kon sa alxuraan ji leer na de sa alxuraan ji moom xawma alxuraanu lan la Ousmane Sonko amul liberté barrière yi dañul makki Sall seen papa sax mënu koo delloose Macky sàll yàllaa ko fi teg mu nekk ci réew mi yaru lool mën a liggéey lool am éduqué yaa ngi dégg fi mu toll nii mbàkke mbàkke yi lay mbubboo mënoo ne mbàkke mbàkke yi dañ laa bëgg ay Serigne Saliou Mbàkke xaw ma Cheikh Saliou Mbàkke may na la xar ba pare ay Akhenaton ay Keysi Of ay Mola Morgan ay Ousmane Tunkara bu jógee di saa ay gigi bu jógee di saa mbàkke mbàkke yi loolu jabaate mënu koo weesu mbàkke mbàkke yi ngeen di saaga ay sëriñ muntaxa ay ku nekk ngeen saaga ko wax ci moom lu ñaaw te boo jógee di ndamoo mbàkke mbàkke yi loolu mënu fee nekk manipulation yooyu noonu di jàll boo bëggee sénégalais yi naw la taxawal ci devant sénégalais yépp nga ne leen dangaa juum bërëb bi nga demoon ti katt aji saar du sa bërëb yow boo dee katte ba dem fekk fa ay dàngin kay nga sol say marakis delluwaat te xam ne fii du lëf lu baax lëfu dàngin nun koy katte dangay maase wuj mais man dama leen di laaj Sénégalais yi da ngaa feebar sa yaram day roof mais demal ci docteur wala ci clinique Adji Sarr du mun amul amul amul diplôme mun ta faj ah, ah xamul nan la ni maase woo yow bu dee maase kay sa ñaari jabar yi seen nooy na lool seen pooj yi baax na seen loxo yi nooy la buñ la maasee dàmp la ñaari yoon bu soobee yàlla lépp loolu dina wàcc Adji Sarr dafa mën li sama jabar yi man. Adji Sarr amul diplôme mun ta faj yow kay waxal da nga doon daanu di nga katt ko nag ba daanu ji yàq lëf li bëgg a daw bëgg koo fajee xeex mun ta nekk yàlla li mu wax ci alxuraan da nga koy indi fal force mooy laa taqarabu zina bul laal bul jege booy xool yow xool nga dem di katte moo gën nga ñuy indil ay aaya Ibrahima ak euh, nee na xarma nangam ak wax loo na koog yonent bi wàcc naag fële la ko waxee xeex bee nangam non non indil ñu ne ñu laa taqarabu zina yàllaa ko wax ci alxuraan bul laal. bul jege bul xool yow ngay katte indil ñu aaya boobu looloy suura bu baax bi li ngay wax nii rek baax na mais li ko gën a baax mooy laa taqrabu zinaa bi bul laal bul jege indil ñu boobu li ñuy wax nii lépp xam nañ ko mais ñu indil boobu dama ne leen Macky Sall Sall ngaa leen am tooloo moom la ñu àndal. askan bi moom la ñu bëgg réew mi moom la bëgg sénégalais yi Macky la ñu wax deuxième quinquennat réew mi yëngu Macky baax ci réew mi moo ko mën a yor moo ko mën a doxal seen bàyyi Ousmane ko sax mënut a déloger Macky Sall ci bale bi Macky deful lu ñaaw ci réew mi lu baax rek la fiy def di dimbali ay nit. di di xool jeunesse bi di gëstu nit ñi du wax lu ñaaw du saaga ndey du woote fitna du xeex waaw lu rafet rek. bëggee mën a yor réew mi moom rek baax ci réew mi moom la kilifa diine yi respecté moom la nit ñi respecté Macky rek ñun Macky rek la ñu topp keneen kuy génne di woote woote lu oustaz te dëggul lool boo boo bëggee sa woote oustaz leer da ngay dëggal na yàlla moo bind ci alxuraan ne laa taqrabu zina bul laal bul jege bul xool man Ousmane Sonko weesu naa xool mais dama doon katte ëllëgee ñu xam ne sa jàng wér na puxoo bala maa ne ñaa puxoo ma puxoo te da ngaa leer puxoo lex yi puxoo puxoo de caga bu bon la a bona bona bon puxoo puxoo de bu ko yàlla baalul li yàlla def ci alxuraan bi yépp pro pro sàppi na ko laa taqara buusi naa ci jege bul laal bul jege moom mu dem jàpp aj saat di ko kii moo yeb yàlla yow bul laal bul jege ngay katte mais kii dëgërul fit ba pare toog ci devant Sénégal yëpp naan yonent bi nee na yàlla nee na Ismaïla ah Ibrahim yonent yàlla Nuuru yonent yàlla Noox Omar da koo laal Moustapha naa ko gën a yomb yàlla nee na bul laal bul jege bul xool ngay kate mais sa waay man yéen wér ngeen poxoom yi nit la Macky rek la ñu topp Macky rek la ñu topp ñun Macky rek la wax lu ñu Macky Sall waxuñu ko léegi nag euh, comme que euh, kii naa ci Ousmane Sonko maa ngi ñëwaat damay ñëw ci caga bii anamu. awus borom kanam gii di mel ne lëf lu bi dënte ma ne ko sa kanam gii di mel ne nata nag nga ne ci mën ngay dugg xanaa laajte woo ma awus ci mën ngay dugg man xale bu pare bi man aadamo boss des négri l'homme qui n'a rien jamais perdu de sa valeur l'enfant bien préparé sponsorisé par sa famille ah man ci man ngay dugg dinaa ratt sa doxatu ndey omelette sa lëfal ndey sur le plat sa data ndey wal sa dayu ndey ba mu mel non yow yow tey lay Dakar sa ndey yow xanaa xamoo fi nga dugg ca ga mu katt sa data ndey bi yow awus nga xam ne Dubaay ngay nekk ñu lay katt di la paasante sa data bi boo ko yaataloon fi mu toll nii sama téléphone bi mën naa ko faa dugal 3 millions 3000 personnes yëpp ma roof ko si sa data bi ñu fay ndekkee di fa añe di fa naafila di fa jaamu yàlla te duñ ci am benn bàkkaar ndax data bu rëy nga naan yow yow yow ci mën ngay dugg doomu xaj ak caga bu kat sëll fal ndey bi